nga nu koy barke laa ilaha illallah lii ma gis. wax la lim gis waaye Ama Balde. Mhm. ñu tàcc ko nag nice nice doomu Fallaye gën cee. pël bi kenn du yow. gintee booy pikin gintee booy gine gintee sunu pël bi gintee borom nel bi jegintee Ama Baldé gintee takk sa gita sa yooyu du moom am nay dara lu ma naqari baate Baldé li muy def dëgg dafa bëgg rakkam da koy défendre sénégalais yi nañ réglé mm-hmm. te bàyyi laa ilaha illallah mais Demba mais Demba noo dem dem dem lu ko yërëm noo. bii Demba dem jooy la ndeysaan bii eh. yow xool jàppal baax incha allah man moom xool Pikine yow laa fay topp. Demba yaa wóor man Demba rek laay topp. mais di courage Ama mbër nga. Baye Fall nga jantal nga. nii la kuy bëree daanu. wax dëgg fa mais félicitations à nos le grand Modou xarañ loo bu baax a baax yow ak kii di Serigne Saliou Seck yéen tamit ñoo ngi nuyu Sata Soum jërëjëf Seck yéen tamit ñoo ngi bu baax a baax la Lionel fermer les universités stade ouvert le Sénégal pays émergent na ko wax ñi ko tëj ak ñi ko tijji loolu moom ñun suñu yoon nekku ci léegi nga xam ne mu ngi def buzz coow lu rëy rëy euh, fii si Sénégal euh, yàgg na sax ça fait euh, même pas fu mu toll nii léegi mat une semaine lundi bi dañu waxoon lu bëri dina xew heureusement loolu yëpp dina si ñëw mais nañ benn benn par nànk-nànk si diggante kii di Adamo la ñuy commencé ak kii di oustaz Modou Fall gannaaw ba kii di oustaz Modou Fall yëkkati ay kàddu yi nga xam ni peut-être ñu bëri lañ jàppoon ne kii di Adamo la si waxanteel parce que tamit dem na sax ba naan nettali si borom la dàqee est-ce que duñu bàyyi ngeen déglu ko li nga xam ne nii moom la kii di Oustaz Modou Fall wax. mais amul raison. xam lu cee lu kilo ceeb di jar ci réew mi mën ngaa xam ci réew mi dara mais loo fi wax dañ laa inventé seetlul li ma la wax. ñiy direct ñëpp di attaquer nit ñi yor naa sa dossier dinaa ci wax suba dossier bi nag li ma ci xam nangam ak nangam fooy lañ leen bindal dañuy liir ñi leen koy jox ñi ngi ci réew mi senegal ñi fi waa bitim réew di yàq ñëpp ñiy def direct ci internet bi TikTok beeg Instagram bi ñi nuy yàq ñëpp liñ leen di yàqee waa senegal ñoo leen ko envoyé ñoo leen ko wax ñoo leen fay lii moo fi am. allo wax ko nangam dafa am loo fàtte woon démb parce que démb seetaan naa la mais bi nga naan nangam dafa am loo fàtte jox ko nangam ne ko léegi bii nga ciy dolli rek mu jeex après dolli ci bii neel nangam wuyu ma maa ngi lay déglu dégg nga ok. salaamaaleykum mbokk yi am naa lu ma war a wax tey dañ la ko wax loo waxal dañ laa fay amul problème defoo dara. ku ragal demal nga toog ku bañ ñu saaga la noppil ku sosal la noppil fii ku fi wax dégg. dama faale ay saaga dee leen wax ak ñu am crédibilité bàyyi leen wili seen dund nit ku tekkiwul dara koo xam ne boo demoon ba tiim ko moog yi ñoo tolloo billahi allazi laa ilaha huwa nga nawloo ko di wax ak moom ñii di ko fay xaalis nañ ko yàqal ma diw waxal ma ci diw attaquel ma diw di fay ay millions am nit ñu leen représenté Sénégal gii booy fay dangay mel ni kuy fay ndox Sénélec ak Sonatel da ngay dem ci ñoom ñoom ngay versé ñoom ñooy envoyé réew mi tappet yi mel ni xat i eh, eh, yow kër yaa ngi eh, lu xew ñi leen représenté ñi ngi fii di yeewoo ci ndakaaru gii boo amee cas booy traité bëgguñu wax ci ñoom ngay dem fay leen ñoom ñoo koy envoyé waat il faut ñu bàyyee loolu xel. acca mooy noonu. kàddu yi nga xam ne nii kii di oustaz Modou Fall yëgti woon na ko keroog muy def euh, émission si télé si télé bi nga xam ne ñëpp koy suivre alors moo ngi noonu nat gannaaw bu mu yëgtee kàddu yi kii di Adamo moom tamit jot na koo tont waaye tont yi moom euh, rus nañ ko maanaam teg ko fii ngeen dégg yenn kàddu yi nga xam ne ni kii di Adamo yëgti na ko ça veut dire que ay kàddu yi nga xam ne nii ay kàddu yu ñaaw la waaye Ousmane fu ma ñëwee mooy euh, kan moo tooñ ñoom ñaar seen diggante. xam nga benn xaw ma ko muy waxal bay xam kan moo yaa ngi déglu dafa naak rek uus uus waaw waaw boo ne ñi nga xam ne dañuy def direct ñu nekk si extérieur mm-hmm. am na koo xam ne maanaam mu demee ba ni te boo jàkkaarloo ak moom comme expecté même fekkee tuddu turam mais peut-être ñun am na njot bi nga xam ne nii peut-être aadamu aadamu lay waxal léegi bu dee aada aadamu lay waxal sax d'accord na na wax ak moom am na ci plein droit mm-hmm. waaye Oustaz Modou Fall li mu wax it am na fu ko teg xëy na bien te li wax dëgg la dëgg bu wér peng la. ab soskat ak fenkat ak xaawikatu sutura. bu la yëgalee mu siiw. di la fenal mbaa di la kereyel. dafa jar a jox valeur. man ku ma jox valeur yow la rek bu ma neexee jox ma valeur bu la neexul jox ma valeur waaye ab fenkat loo koy joxee valeur. te pourtant sénégalais yi ñun sénégalais moom lañ def. te déggoo liñ la wax. tey jii. tey jii sunu sang bi maa koy jaar bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu yàgg filoo ànd ak wër bàyyi dem si Baye Demba si tey bu wootoon bu woo bu woon njaboot gi mm-hmm. di leen wax Maolana Cheikh Ibrahim mm-hmm. di leen wax yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba ak kilifa mag ñu baax ñi teg di def direct mm-hmm. onze personnes koy seetaan. bu amee onze na sant yàlla. merci léegi ka toog fee naan damay katt damay ñàpp kii duul nangam sàngam kon ñan la. kooku danaan waaw kon merde leen ñu fontoo. dañu may jàmm kooku danaan su léegi loolu la. ñoom ñoo ko bëgg affaire yi ñi lay seetaan di la saaga ndey ñoo koy seetaan ñiy seetaan di weddi ñoo koy seetaan. te pourtant ñiy wax di xaste ñoom ñoo koy seetaan. te pourtant ñu naan la dama liggéey ñoom amuñu liggéey ñoo koy seetaan. ak ñoom dañu wër liggéey ba faf léegi toog di seetaan ak wër liggéey di seen liggéey ñoo lay seetaan. maanaam ñiy wër liggéey. toog seetaan moo doon seen liggéey. moo doon seen liggéey. ok ba pare na liggéey yow ñu sax xam nga heureusement ñu ngi toog plateau ñu ngi ñuy filmer lu mu bon bon même bu ñu am nañ caméra bu ñu tiimee ñoom amuñ ñoom seetaan ni mooy seen liggéey force neex naqari sa gat di yéeg di ci kaw di aju mu lay neex mu lay naqari yaa ngi ñuy seetaan seetaan a tax nga saaga ndey seetaan a tax nga gis ñu kon merde dañ ko dañ dañ ko def dañ koy wax fii ku fi def ñu wax mhm. amul ma dem te xaawi sutura jàmbur ku ko def fen la man def leen ma fenkat bëgg naa xaawi sutura jàmbur ku ko def baaxoo doo nitu dara def leen ma ko man du ma nitu dara d'accord naa ñun xaawuñ sutura sax maanaam lu am histoire non non yow yow génn ci de man maa jël sama responsabilité di wax ne pour muy leer ci ñëpp maanaam ku toog di fenal kii asal bu ma kenn damay ubbi damay ñàpp ngeen koy seetaan Mor Fall li mu wax dëgg la dëgg la neex naqari dëgg la ku ko bëgg dëgg la ku ko bañ dëgg la fenkat yi ñu ngi fii senegal surtout lool fenkat yaa ngi fii Sénégal. defantekat yaa ngi fii senegal di dem di fay pour ñu leen di waxal. mu ngi fi Modou Fall li mu wax dëgg la ba pare ñoom ñooy taxaw di la siñ di la jaay ne dañ laa bëgg dañuy kàcc bëgguñ la. maanaam tey jii ñuy dem si Oustaz Modou Fall naan Oustaz Modou Fall lu mu wax yëpp dëgg la Sénégal dañoo ñàkk fayda Sénégal dañoo ñàkk jom suba Adamo mooy defaat direct ñoom ñu dem toog di may seetaanaa di xas Modou Fall. di xas Modou Fall encore une fois. ñooy dem foofu Modou Fall waxaat ñu ñëw ne Modou li nga wax dëgg la Adamo dem saaga ndey ñu ne ko merci baax na ci moom. ba Sénégal lañ nekkoon. naa fekk mën a fen bëri kere mën a tuumaal doomu aadama mun a rey gor boobu lañ ne waxute dee fii moom dëgg moom da koy ñeme rek ngeen necc ku la ni duur nga ne ko day. Mhm. waaw fii moom ku ah ku rusut ba taxaw saaga la ndey. Mhm. bul rus toog ma ko saaga ko ndey man nekkuma ci yooyu de li mu oustaz Modou Fall di wax laa wax de œil pour œil dent pour dent ku ma ne damay ubbi ma ne la damay tëj kese fi da am ndey nit ñi am baay mhm. ngeen am baay ñu am baay ngeen judd ñu juddu fu ngeen juddoo fi ku tudd sama awra ndey ma tudd sa awra ndey moo loolu la rek Sénégal moom foofu la rek ku la jaay réew jaay ko xama dégg réew rek da koy neex mu seetaan la neex ko mu zappee mais des des fois tamit est ce que war nañ maanaam tey jii ñu Sénégal peut être euh, importance bi nga xam ne nii may nekk Adamo yaa ngi dégg keroog si benn vidéo muy wax naan euh, man Sénégal lépp lu